ñu ñëwee ba fii yaakaar naa ne mënuñoo ñàkk waxtaanee actualité ku ne actualité nag wax tey jii ni bis ni ki tey sa sekk mu génn def sorti wax dajeem ak Ousmane Sonko wax yi mu def Sénégal wax déclaration de candidature am ne dina bokk ci élection yi bëgg na wala fas yéene na bokk ci élection yi di ñëw euh, génnuk sa Seck moom ban euh, jàngat nga ci am. waaw man nag comme ni ma koy faral di waxee rek man man moom affaire politique xaw ma ci lu bari. Mm-hmm. Euh, liñ naan Idrissa Seck moom. ay waxam yàlla ci boppam moro ci siroom. Mm-hmm. ah waaw. Mm-hmm. yow nit koo xam ne. Mm-hmm. heure boo génnee nit ñi fañ lay xaar. mukk duñ la fa fekk. buñ lay séentu Kaolack. nga nga nga nga teer see Dakar ci misaal. nit koo xam ne. man daal Idrissa Seck man ay xelam daal nu ma ko mën a jàppee daal jaaxal na ba gëm ne sirru bi ko doon doxal. Mhm. mooy lim daan wax yàlla xotti xolu doomaay di ko di ko di ko ciy dugal. Mhm. muy wax dëgg. di wax loo xam ne lu nit ñi mën a dégg la. Mhm. parce que nga xool journaliste yi nu ñu sonnee jugee ba Dakar. woo leen woo leen Thiès. Ah ñi déplacé ak koor gii. ñëw waxoo leen lenn loo xam ne lu am njëriñ la. wax joo xam ne ci xëbbaa an mansuuraan la. Idrissa Seck da dimbale ni. askan wi mooy. mooy wax joo xam ne amul benn njëriñ. nit booy wax yàlla def na danga bu seen làggee mel nii bu ngeen coow dee leen wax dee leen wax lu baax mm-hmm. bu ngeen kamantu wax lu baax ngeen noppi mm-hmm. wax lu baax nag kenn génnewul ci wax lu am njëriñ mm-hmm. luy dimbale askan wi lu lu lu loo xam ne luy jëriñ luy jëriñ nit ñi la mais Idriss Seck boo ko xoolaanee da ngay rus sax wallaahi azim mais moom mi wax ne dafa bàyyi ba euh, fajar jot mu taal motoom Euh, dem ba kër Ousmane Sonko moom ak Ousmane Sonko sax. ñëw jilleendoo fajar bisu le 27. ndajewu Ousmane Sonko ak Idrissa Seck moom ban jàngat nga ci am. waaw loolu nag moom fa tabaarakallaahu xam naa ne nag moom Ousmane Sonko moom. Mhm. nit la koo xam ne comme ni ma koy faral di waxee rek ñëpp a bëbbu. Mhm. jëm ci moom. Mhm. moo tax instant bii nag kenn ku ci nekk da nga bëgg bëgg toog ak moom wala da nga bëgg gisee moom. mais seen gisee ba bu dee am na. lañ fa wax loolu yàlla moo xam. mais xam naa ne Idriss Seck moom. Euh, heure bu waxee daal nit ñi danañ am déception ci ñoo ci moom. Mm-hmm. waaw Ousmane sonk nag yàlla ci boppam moo tàggat doomu aadama yi. Mm-hmm. tàggat jinne yi. Mm-hmm. tàggat rawxaan yi. tàggat malaaka yi. tàggat lépp ñu bëgg bu jëbali Ousmane Sonko. waaw gisee bu man naa am. gisoo ne gisoo ne Idi mën na doon président Sénégal 2024. loolu nag yaakaaruma ko. te bu dee sama kurus gi li ma yàlla di xamal di ma koy wan. gisuma Idrissa Seck ak toogam ci nguur gi. Mm. mën da ne. non non. mënta jiite Sénégal. bu dee li ñuy riyaada ñun. Mhm. teeku suñu course yàlla du ñu koy xamal. Mhm. Idrissa nekkul kuy toog Sénégal. gisuñ ko boog. Hmm. waaw. mbaa du ba mu ko ba mu ba mu waree toog daa weesu. non dafa yàqule dafa yàqule ñu naan kii bu wëlliw bu yàqu yenn saa da koy gis. mais mhm. sax ay mbiram dafa yàqu. Mhm. waaw dafa yàqu daal. Mhm. dafa yàqu. am na it beneen mbir bu ñu jëm dëgmal muy lundi bii di ñëw incha allah wala 17 avril. procès bi nga xamante ne en nappel la. Mame Mbaye Niang diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko balaa ñuy ñëw ci procès bi sax Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko <coughs> euh, li fi jot jàllal ban jàngat nga ci am. xam naa ne daal moom réew mi. Mhm. chaque jour nag ñi may topp yàgg nañ dégg may wax ne may wax loo xam ne dañ ci teg seen bët. Mhm. mais maam may ñaa ci boppam. Mhm. billaahi bu xamoon li kay yoot. dina bàyyi ci dina bàyyi lu muy yoot. dina dugg ci ay jafe-jafe yoo xam ne. àdduna bi yëpp dañ ci teg seen bët. moom maam Mbaye Niang moom moom maam Mbaye Niang le le 17 bii tamit. ah man na garaaw waaw temps yee passé wax naa ko. Mhm. biñ biñ convoqué Ousmane Sonko ci la 30. Mhm. ma ne leen le 30 bi am na lu ci war. Mhm. buñ ko defut. dana demee neneen. yàlla dogal na benn nit bu bëgg réew mi. yàlla dogal woo na ma am na luñ def. loo xam ne pour jàmmi réew mi la woon. waaye le 17 bii a ah, danañ ñaan jàmmu nag. Mm. ñun mo en tant que citoyen Mm-hmm. en tant que surtout Alaaji lay Niass. Mm-hmm. danañ ñaan jàmm yàlla def ko ci réew mi. Mm-hmm. mais man na mën na doy waar. mën na doy waar na doy waar. doy waar gi moom euh, euh, waa Ousmane Sonko moom loo gis ci ay mbiram. ah Ousmane Sonko nag moom nit la koo xam ne defe naa ne ay mbiram. moo moo yëngu. moo tax ñaareel boo ko laalee sax yow yow say mbir dana ci yënguwaale mais est-ce que dana mujjee fu neex. moo tax ma ne maam may ñaam yi ay mbokkam buñ ko buñ ko jege woon wala buñ ko doon waxal. dañ naan ko mu génne ci dossier Ousmane Sonko. parce que du ci jëlee yaay kaay seet. te maa la ko wax fii bu la neexee nga jàpp jour bi. noté ko mm-hmm. waaw sëñ bi Ousmane Sonko moom ndiiraan gi xale yi jubali def ci moom euh, bëgg gi ko xale yi bëgg am na sax ñuy koy wooyee sëriñ ñii naan mu sell mi ñii naan mooy sama sëriñ ak ñii naan bu soxla woon bakkan mu jox ma ko ak yooyu mm-hmm. loolu moom neen la mm-hmm. wala yow baatin la wala lan moo waral loolu. waaw comme ni ma koy faral di waxee xam nga Ousmane Sonko euh, dafa nekk nit koo xam ne lu ñu lu ñu yàgg daw ay at moom la yàlla def ci Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko tey képp kuy nitu daara war nga koo jàppale ñaanal ko yàlla. Mhm. moom rek lañ fi gis muy candidat boo xam ne. Mhm. bàqara ba naasi. mën na la cee mën na la cee wax ay aaya yoo xam ne. dara du ko dindi. dëgg la. te gis nga si nguur gii ne fi. Mhm. am na si ñoo xam ne Faatiha mokkuluñ ko. Mhm. am na si ñoo xam ne Ayatul Kursi mokkuluñ ko. Mhm. am na ci ñoo xam ne Laqad Jaaku mokkuluñ ko. am na ci ñoo xam ne Alam na Nasrah mokkuluñ ko. nguur googu nag bu demee ba tollu foofu li ñuy dimbale mooy ñu jox koo xam ne doomu daara la wala bëgg na daara. wala xam na ci suñu diine. loo xam ne moom mën na ci sukkandiku. Ousmane Sonko na li tax nit ñi bëggu ko sëriñ daara yi bëgg ko ustaas yi bëgg ko képp kuy yàlla bëgg ko loolu rek lañ gis ci moom. gëm ne buñ ko tegee ci réew mi. Mhm. incha allahu Sénégal. Mhm. dana am coppitiku. Mhm. parce que fii réew mi réewum lislaam la. képp kuñ koy jox da nga war a xam ci kaamilab yàlla bii lu leer naññi. da nga war a xam ci diina lu leer naññi. Ousmane Sonko loolu la loolu lañ gis ñëpp am ci moom yaakaar. waaw ñëpp am ci Ousmane Sonko yaakaar Macky Sall ak troisième mandat bi moom boo ko doon digal loo koy digal. mu teg ko ci suuf bu dee bëgg na jàmm ci réew mi. xaw ma bëgg na ko wala bëgg mais bu dee jàmmi réew mee ko ñor. Mhm. na teg troisième mandat ci suuf. parce que nekk lu mën a ne. Mhm. mante ne di troisième mandat Macky Sall fii mante ne. Mhm. Abdoulaye Wade bi mu ko fi bëggee nekku moo njëkk a taxaw. ne du fi nekk du du manta nekk. dëgg la ah moom itam mu taxawaat tey. ñëpp tekkaaram gi yëpp loolu la rek loolu rekk a nekk ci xelam mi troisième mandat te loolu manta ne. réew mi moom eh, sëñ bi ni ma koy faral di waxee ñaar. ñaar mooy xa mooy maye jàmm ci réew mi mooy mm-hmm. Macky Sall ne duma dem troisième mandat. Mm-hmm. beneen bi mu bàyyi Ousmane sonk mu nekk ci jàmm. mais bu ne dana jéem a galgal Ousmane Sonko ba tëj ko. Mm-hmm. réew mi dana tàkk. beneen bi bu ne dana posé troisième candidat. réew mi dana tàkk. instant bi nag ñi war a wax kenn waxu ci. ñenn sëriñ si yenn kilifa diine yi. ñi nga xam ne ñoo fi représenté yonent yi. représenté fi seen maam yeeg seen baay yi. déggoo ci kenn addu. te lii raam nag. ci ñag ba la jëm. mbaa na fa am kër. ah waaw nañ toog rek. boo waxee ñu ne réew mu Alaaji Abdoulaye Ñas tëdd. réew mu maam Khalifa Ñas tëdd. réew mu Xaadimu Rasul tëdd. réew mu Sidi Xaaji Maalik Si tëdd. réew moom jàmm fi ware waaye ñi war a wax jàmm nañ wax. ki war a wax réew mi am jàmm na wax. waaye topp ay dossiers yoo xam ne ñëpp xam nañ ne lii ay naxas ak kandang na. Mhm. nga bëgg faagaagal doomu jàmbur. Mhm. amul sens de. te Ousmane Sonko sëñ bi. Mm. billahi lazi laa ilaha illa ku koy kàmbal. luñ naan mën nga ko mën ngaa mën nga koo ñàdd ba jàpp ne rendee ci des billahi mu rëcc la. Mm. te boobaa doo ci jëlee yow kaay seet. moo tax moo tax waa ji borom nel boobu nu mu tudd. borom nel bi kii Mame Mbaye Niang xooma mooy borom nel boobu <laughs> kooku kooku kooku man man li ma ko gisal fii mm. Ah, yàlla nañ ci yàlla musal baax na bisimilah ah, ñu ñu ñoo ngi 313 euh, tey ñu ngi dalal euh, Seydi Cheikh Ahmed xalifa ñas man sax man maa doon wax mbiru actualité forcé la ci waaye ba ñu ñëwee Abdou Fall daf ne ma euh, li ñuy gën a yëkkati moo ëpp njëriñ actualité bu ñu wax ci actualité waaye man maa maa dëgër bopp ne ko mënta ñàkk waaye sëñ bi coow yi bëri na jàngoro yi bëri na problème yi bëri na ba ñu ñëwee sax dañu la fekk ngay bind euh, la nga doon bind lan la